yar ci doomam yar boo xam ne bu ma sëkk lay doon mu fexe ba soppante am ci biir famille bi képp koo ci xam ne kii yaa ëpp doole sa moroom nga di ko aar di ko dimbale nga yëg sa wajur coono yim am ci yow xàq yim am ci yow bu dee yaay ji nam la ëmbe woon nga dis gën mu dëkke ko ay weer ba ngay ganee àdduna mu sonn ci lool xaw a dee coono bi jeexul mu dëkk ci di la boot nga di ko def sobe boo tawatee dootu nelaw lu mu am attan ko xañ boppam yéene la ko xàq jooju diine lay xamal ni mu toll nga xam ne ko bokk na ci ngoot bokk na ci wëllëre sa waajur nga def ko teg ko foo xam ne tegula fa sax sa bopp léegi bu fekkent ne dañoo bëgg famille ci boppam ni ñuy soppantee ni ñuy dimbalantee ni ñuy yërmanantee kenn ku ci nekk li nga ameel sa morom ci xaq nga jàpp ko nga xam ne day daal di nekk génn buum gu leen takk ba mu dëgër nga xam ne dara mënu leen a teqale famille bi ci boppam beneen famille ba mu dendal te mu takk boppam moom it ci warugar yooyu ba sàmm ko ba nga xam ne lu dëgër la boole ko moom it ak bi famille ba quartier bi mag nga xam ne karti bi yëpp dañuy daal di nekk mel ne benn jëm jëmm yéeneente jàmm kenn ku ci nekk di fexeel sa morom jàmm di ko wutal lu baax boo ko xamalee lu koy lor nga taxaw ca attan koo dimbali ba lor sa bopp quartier boobu ci boppam quartier bi mu dengal noonu ba dëkk bi mat dëkk bi ba réew mi mat nga xam ne réew mépp dañuy daal di nekk benn kenn ku nekk yëpp li nga bokk ak sa moroom ak li la war ci moom ak ni nga ko war a sàmm ni nga war a taxawee ci mbiram ñu dem ba famille ci boppam famille bi tax nga xam ne soppante dañ dootu ci amati ci lifteef dootu ci amati dara dootu ci amati lu leen di boole wala luy fàttali moroom ëllëg xale bi boo amee fukki at ak juróom-ñett moom moom boppam mu leer ko ne fu nekk xam na ne xelam mësagul ndax loi yi ñu tëral sax boo bokk na ci nit ku amul fanweeri at yoon di ko yërëm kon xam nañ ne xelam matagul léegi nag waxuma fanweer ak waaye fukki at ak juróom ñett xale bi moom boppam ba lu ko soob def bu duggee ci lu koy lor bu ciy dugg du ko xam kenn sañu ko ne bu ci dugg waxtu wuy tooñ kenn sañu la téye loxoom ne ko bul tooñ ndax ëllëg si biir lii ciy dal moo moom boppam mel na ko neex bu jógee ana la na koy yar ndey du ko yar baay du ko yar xarit du ko yar mbokk du ko yar ku ko yar mbedd mi ak film yi ak télévision yi ak rajo yi buñ ko yaree gannaaw moom xelam ma tegul li neex ba kanam rek moom lay dal topp ndax loolu mooy gën a yomb fi moom mooy neex ci moom bu ëllëgee yooyu yépp di ay musiba yu sotti ko ci kawam te du am